yaa oustaz xale yi na ngeen def doo moroomu benn oustaz maa ko wax doo seen morom <laughs> dootoo dellu Italie de ancien Modou Modou liggéey nga ci ditaa yëpp yàgg ngaa impegnato ormay waaye bi nga ñëwee Sénégal itam impegnato nga ci télé yi ormay grazie mille ormay grazie mille